nuyoo ñi nga xamante ni ñooy ñoom lañ jàkkaarlool di wax ne suñu situation fii ci marché bu Mbacké yàgg na doon jafe-jafe depuis déplacement bi mu doon loo xamante ni métti woon na ci ñun trop nag waaye sant nañ ci bu baax a baax a baax parce que li ñu ci bëggoon li ci ëpp am nañu ko nekkoon nan ci marché bi nag lu mat 5 mois ak ay jafe-jafe parce que fee doon na loo xamante ni doon toon marché toogandiwaay la woon rek situation ba ñu fa dal nag tool nawet li ci ëpp. ci seeni nit yoroon fas bagage li ci ëpp yàqu na ndox mi yàq na lenn li te mesure d'accompagnement yi nga xamante ni commune bi waxoon na ko ne dana ko ànd ak ñun ci nawet bi bu dikkee am na loo xamante ni defu ko ndax ñëwut ba foofa fekkuñu ñu fa xool suñuy jafe-jafe ànd ak ñun ci loolu ginnaaw bi ñu sante yàlla nag actuellement moom demaat na nit ba solution it amaat na parce que gëm naa ne marché bi fi mu toll nii chantier bi pare na ba def na ñaar réunion yoo xamante ni ànd nañ ko ak commune bu Mbàkke ci teewaayu la secretaire municipal Seck ba ñu xamal ñu ne altine bii di ñëw dinañ delluwaat ca marché bële delluwaat suñu ay activité parce que loolu lañ ko war a ubbi le 17 suñu ko ubbee nag danañ commencé liggéey bi ci kaw nag mooy loo xamante ni it am na ay proposition yoo xamante ni it indi woon nañ ko fa ñun it am na loo xamante ni ànd nañ ci ñoom am na loo xamante ni ànduñ ci ak ñoom li ci ëpp nag mooy nekkin bi rek ak place yi li ñu àndut ak ñoom danoo prévoiroon ne biir maal bi kenn dootu fa defati taseer ñu ne ñun loolu duñ ci mën a ànd parce que marché bi dikku leen fi tabax fi lu bees da ngeen a réfectionné bu ngeen demoon nag ba tabax ab marché bu bees natt seen ay taabal ne nii leen bëgg marché bay doxee nit ñi danañ ci ànd ak yéen ba ñuy doog a commencé di dem ñun dañ woon lépp loo xamante ni moom ngeen ñu génne ci marché bi suñ delloo noonu leen fa bëgg a toogewaat ñu ànd ak ñun ci yóg ban bindoon ci PV yoo xamante ni mi ngi ci ñoom am naa ci secrétaire municipal am na ci préfet am na ci commandant am na ci foofu lañ tolloon ci liggéey kon buñ dikkaatee tey ñu bëggaate tegaat jëlaat yeneen mesure ñun loolu dañ koy bañ dañ koy lànk ci bañ googu lànk gin ko def nag moo tax ñu fekk si ñu ca la nekk waaw maire bi mooy lépp loo xamante ni wax nga ko ak saw askan loola nga fexe koo jëfe parce que ki nga xamante ni moo fi moo fi nekk doon njiitu bokk moomeel bi ñun ñoo ko fi teg kon ñun dafa war a jaamu suñu soxla li ñu bëgg mu koy waxtaane ak ñun waaye ñun chaque jour euh, dañuy dégg ci maire bi rek ñu ne génn na ci mbedd bi am na lu mu wax ba ci ay cantines yoo xamante ni indi woon na ko ci maire bi ne daf koy def ci marché bi ñun dañoo xëy xëy rek dégg ko te loolu bu bala moon a defar benn cantine dañoo waroon a woo sax waxtaan ci ak ñun ba pare parce que ab dëkk jàpp naa ne li koy doxal mooy ngay waxtaan ak saw askan te jege leen loolu rek moo war a am waaye jàpp na man lépp lu may def maa ci ëpp xam-xam lépp lu may def maa ko gën a xam lépp lu may def maa ko gën a mën loolu du defarut dara te bari ki démb dégg naa ko mu wax ci benn émission benn rajo ma koy naqarlu trop mu ne waa Mbàkke dana war a jug ci rawat na waa marché ñun dun ay pauvre système bi ñu nekk moo doon loo xamante ni Mbàkke amul dara loo xamante ni am na fi lu commerce commerce bii ñu nekk nag kenn mënuñu cee jëlee ñaan nan yàlla nag am ay teraanga nekk ci leneen mais commerce dëkk am réew sax pour mu dox commerce ba moo cee jiitu waaw pauvreté googu muy wax nag moom moo ko gis mais ñun gisuñ ko ci waa Mbàkke waaw parce que waa Mbàkke ay noble lan te ñu bëgg lépp ñoo ngi koy defal seen bopp xaaruñ seen bopp ci ci ci kenn bu fekkoon te danoo dépendre ci commune bi ak lee mu jiite rek jàpp naa ne toroxtaane dañ ñu indi waaw ndax marché bi nekk nan fa ndox ma di taa ñu cay sonn trop te gisuñ dara loo xamante ni fekkee nañu fa ñooy débrouiller wu daaj suñu ay place daaj suñu ay cantine defar suñu ay taabal ba man faa toog pour mën a liggéey jox ab yóbbu lu yóbbu suñu askan waaw di sant bu baax a baax nag ñi nga xamante ni ñoom la nekkal ci marché bu Mbàkke bi ci njiitul Baye asan Sall vraiment